aadama boobu war nga koo xam war nga ko maîtriser ba xam moom nan la mel nan la jage ba bu jage de nga xam bu jagee nii la war a mel donte kon mel na nii kon jagadi na nga jagal ko kon faj boo doon bu mooy fekk lu jagadi nga jagalaat ko ba mu jag loolu kon dey laaj nga xam bi mu jagee nan la mel nan lay doxee bu soo sax ci baatu malaat baat bi baatu grec la mi ngi tekki abitus malhabitus malhabitus mi ngi tekki quelque chose de mauvais de mauvais état maanaam loo xam ni dafa jagadi moo war a sax ñu ne kii malaat la il est mooy kon dafa nekk en mauvais état kon kii ku jagadi la ñor koo jagal nit kooku nag moom mi nga xam ne ci ngay dox danga ko war a xam xam ni kat kii doomu aadama kat nii lay fonctionner nii lay doxee nii la bëgg nii lay dundee maanaam nga xam ne nit ki li jiitu ay cellules ay centaines de milliards de cellules ñoo ko composé ñu koy wax métazoaire nga xam ne cellules yooyu dañuy dund dund à part ku ci ne mbindaafoon la ci biir nit ki nga xam dañu dajaloo ba doon jëmmi doomu mais ay cellules centaines de milliards de cellule bu nekk di lekk di naan di dund di am ay dem àllam maanaam am noyau bi ci ADN bi am lysosome bi am ribosome bi am mitochondrie bi ci li muy noyyi et cetera ñu yor yoolu nokk bi ñu yor wàllu nettoyé bi ku ci ne am lay dox ci gènes yeeg mel noonu cellules yooyu ñu dajaloo ba nekk ay cër gisoo ci wàllu nit da gis ñu naan la nga dégg lu mel ne ñu ne la appareil respiratoire wax ni lan mooy nit ki jëmm ji dafa soxla ngelaw nokki oxygène dindi gaz carbonique bi nga xam ne soxlawoo ko ñu ne yenn cër yi yéen lañ jox wàllu lépp loo xam nit ki war na ko soxla ci ngelaw pour nooyee ko oxygène ak lépp loo xam war na ko génne ñu ne yéen cër yi yéen lañ ko jox ñoo leen tuddee appareil respiratoire lu mel ni xëtër yi ci la bokk muy poumon yi nga xam ne mu ngi toll ci 1 kilogramme 250 ak tuyau yi nga xam ni fa la ngelaw di jaar muy voie yi waaye itam thorax bi ci la bokk waaye itam diaphragme bi ci la bokk xëtër yi ñoom li ñuy def mooy weccoo bi ci deret bi ci diggante oxygène bi ak gas gaz carbonique fa lañ ko defee ci li ñuy wax alvéoles yi ñu ne kon ñii ñooy appareil respiratoire yéen lañ ko dénk mu nga dégg ñu ne appareil cardiocirculatoire maanaam ñu am na beneen appareil boo xam ne kat ñu ne ko kat li la war doxal mooy deret gi nga xam ni moo war a dugg ci doomu aadama bi cër bu nekk mu dem fa yóbbul ko la mu soxla ci ay ferñeent yóbbu ko lu mu soxla ci li mu war a dundee waaye dindil ko ay tilimam tamit ñu ne yow deret bi yow yaa yor loolu waaye ki lay yóbbu mooy li ñuy wax appareil cardiocirculatoire bi muy lan xol bi. toll ci 270 cent grammes nga am li compose mooy valvule tricuspide yi valvule mitrale euh, ci artère ci ci ci péricarde bi endocarde bi myocarde bi nga xamni ak tuyau yi mu wara jaar momit it bi muy artère yi muy capillaire yi nga xamni fa dafa essence ak veine yi ñu ne yéen yéen yor appareil cardio-circulatoire boobu moom ay cër la yu bolé def sen regroupement ñu ne yéen lañ jox lool jëlaat benen ne yeen kat yéen a yor appareil excréteur yi maanaam lu jëm ci appareil urinaire manam lo xamni nit ki bu mu naanee ndox ba ñu raxas deret beeg yu mel noonu salte yi nga xam ne war nañ koo génne ñu ne yéen yoon assainissement bi moo tax ñu ne kat loolu lan la mooy rein bi xam ne ñaar la bu ci dawlu cent vingt ba cent cinquante grammes nga xam ñoom seen biir ay nephron ñoo nekk seen biir nephron bu ne am lu ko composé lu ñuy wax glomérule lu ñuy wax tubule nga xam ne bu ci nekk un million de nephron la am glomérule yooyu di segg ak tubule di xent di jël li ñu soxla li ñu soxla ñu sànni ko ci li nga xam ne mooy urétère bi mu jóge ci urétère bi dem ci vessie bi jóge ci vessie bi dem ci urètre bi ñu ne ñii ñooy appareil urinaire bi ñu ne yéen yéen a doxalee loolu nga dem bañ ne la appareil reproduction maanaam ñoo xam ni nit ki dafa war a dundante jurante seen biir ñu leen yii kat yenn yor wàllu jurante bi bu dee ci góor testicule yi cellule de Leydig yi ci yenn hormones yi bu dee ku jigéen ki ci ovaire yi ci endomètre bi ci myomètre bi ci trompe de Fallot bi appareil nangam ñoo ne it appareil digestif maanaam kat nit ki dafa soxla pour dund pour mu lekk ferñeent yooyu mu soxla ñu ne ah yéen yenn soxla waañ bi yéenay jël ñam bi yenn koy seb yenn koy togg jox ñu soxla appare digestif mooy lan làmmiñ bi ci la bokk bëñ ci la bokk tuflit yi ci glande salivaire ci la bokk œsophage bi ci la bokk li nga xamante ni moo jëm ci mbàq mi ci la bokk yenn fresh yi koy dimbali muy foie bi ak pancréas bi ci la bokk butit bi muy euh, intestin grêle bi xam toll na ci juróom-ñetti ci la bokk colon bi def un un mètre cinquante ci la bokk yooyu ñu ne la ñooy appareil digestif nga gis ni kon ay appareil appareil yoo xam ni bu ci ne dañ ne la kat lii lay dox moo tax gis ñu ne la kii cardiologue la ci médecine moderne léegi kii ñu ne la hépatologue la léegi kii ñu ne kii ostéologue la maanaam koo xam ne ci wàllu yax lay liggéey ñu ne kii rhumatologue la ñu ne kii euh, euh, urologue la kii pneumologue la parce que dañu jël doomu bi def ko ay pàcc-pàcc ndax appareil yu bari la appareil bu ne am lu muy dox mais ci biir appareil itam dañuy liggéeyante seen biir man dañu am interdépendance am tam connexion parfois ngis sax ci gisoo ci wàllu nokkeeg nooy appareil cardiocirculatoire bi da ciy dox mais appareil pulmonaire bi da ciy dox gis ñoom ñëpp kon ci appareil respiratoire bi ci larynx ak pharynx yooyu yëpp nga gis ni kon ñoom ñëpp dañu am lëkkaloo bu ñuy def pour liggéey ñoom ñëpp pour lan pour benn jëmmi doomu aadama muy pour kan pour nit ki nga xam ne moom mooy leen intéressé pour ku nekk ci ñoom am nu mu doxee ak nu mu defee appareil yooyu nga gis. appareil yi nga xam ne ku ci nekk war na doxal ñoom nag ku ci ne nit ki war nga maîtriser loolu pour nga xam ne kat kon kii nii lay doxee ba nga war a mën a jublu ci moom ba appareil bu ci doxul nga xam ne lii moo tax doxul ndax yi nag système moo koy doxal. mais Medoune euh, bu la déggee ngay wax euh, dañuy xam ne kii wax li muy wax xam na ko euh, ndax danga jàng li ñuy wax anatomie. ci wàllu médecine yàlla dimbaluñu maîtriser nañ ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu nit. muy anatomie manga mais même sax ci problème mu feebar li ñuy wax pathologie xam nga yaay wax faj li war pour nga nek nekk fajkat da nga war xam pathologie pathologie nit ki bu ko xamul du faj parce que pathologie ci faj moy li nga xamni moy jumtu kay yi lay may nga mëna xamé xàmmee feebar yi ak xam lu koy lan moy waral feebar yi boo tax ñaati bar la batu grec la pathos logos pathos moy tekki affection logos moy science moy xam-xam yi nga xamanteni ñolay may nga mëna xam feebar bi kon gannaaw ba nga xamé nit. war ham xam feebar bi waaye nag da ngay xam tam lu ñuy wax prophylaxie ci ci faj la bok prophylaxie moom it baatu la moom la wax di tekki prendre précaution de manam jël say mato ak say jumtukaay ci mbir timbir moom loolu di wax nan fagaru moo gën ci fajin manam prévention ci faj la bok xam nga nit ku jag kooku jagam boobu mu jak dafa nga war a fexe mu téye ko continuer di jag loolu mooy norme bi jag boobu nag pour mu continuer jag dafa war a moytu lépp luy tax moom mu jagadi waaye lépp loo xam tam dara tax moom mu jag da ko war di def moment boobu yaa ngi ci prophylaxie yaa ngi ci prévention yaa ngi ci fagaru di moytu lu lay feebar waaye di def loo xam ne dana tax yow nga bañ a feebar kon prophylaxie boobu ci paj mi la bokk mais nag paj mi dëgg nag moom la ñuy wax terapi jóge ci baatu garab ñuy wax thérapio di tekki je soigne maanaam maa ngi faj maanaam li na këtt li na jonn moo koy faj maanaam yaram bi jagoon na yaa ngi doon def say moytu pour mu baña febar ak lepp lu koy deugal nga diko def waye yalla dogal na ni febar nga fof kon nak prévention amatu fa wessna kon ki febar da nga am tam thérapie thérapie bobu nga soxla moy lan fexé ba li tax mu jagadi nga dem uti ay pexé yi tax mu jagaat kon jamono ji ngay jël li jagadi di ko jagal jamono jog yaangi def li ñu wax thérapie bu ñu doon euh, xayma yow ci sa consultation Euh, moo xam euh, tey malade yi ñëw ci yow lan la ëpp luñ lay jàmbat. ci ëpp problème mu tànk ci la bokk mettitu tànk mettitu ndigg mettitu mbagg mooy di jëm ci rhumatisme yi polyarthrite rhumatoïde yi li jëm ci ostéoporose yi li jëm ci ostéomalacie yi euh, yooyu yëpp dañ dañ ci jàmbat lu bari ulcère nit ñi bëri nañ luñ koy jàmbat problème mu bëri nañu ko jàmbat mais nag soo degee si hémorroïde bu bëri da gis fukk yu taxaw ne dañoo am hémorroïde mais ñaar ci am hémorroïde ñu bëri leneen lañ am mais Sénégal dafa jël lu ñëw ci jëm ci suufam rek mun a hémorroïde waaye tamit li jëm ci wàllu ñi am am doom bari na fi dinañ koy gis mais li daal bu weesoo problème mu yax yeeg yooyu jëm ci problème mu ulcère yi problème hémorroïde yi bokk na ci li nga xam ni bëri na lu ko nit jàmbat bu dee ci góor ñi nag mu néew doole yooyu itam bokk na ci li nga xam ni ñu bëri mu ngi dab góor ñi. Euh, dañuy faral di leen di reprocher euh, maanaam ne yéen euh, lu ñëw rek ngeen ne donc man ngeen koo faj mu dem sax ba yóbbul nit ñi ci ñuy wax ci yenn peut-être que maladie yoo xam ne dañ koy tuddee maladie incurable maanaam loo xamee ne daal maanaam ci wàllu paj mhm. gisaguñ ci saafara mhm. waaw xam nga ñii wax dañuy faj lépp ñooñu dañ leen war a faji ñooñu dañoo ñooñu dañu feebar dañ war a faj lépp kenn mënu ko faj dafa am feebar yoo xam ne nee naa du tudd turu feebar doo fa loolu ñu wax la ñuy wax ay trouble métabolique la ñuy wax xam nga nee naa sànq ci nit ay appareils ñoo ko constitué appareil bu ne am na lu sant mais appareil pour mu dox système moo koy doxal appareil pour mu dox mécanisme moo koy doxal léegi dina am feebar yoo xam ne organe bi cër bi wala cër yi wala appareil bi moo feebar nga xam ne tel organe foie bi la pancréas bi la vessie bi la prostate bi la rat bi la wala lenn ci moom moo am problème nga xam ko booba da dem agir ci organe bi parce que xam nga li ko daal mais am na xam ne organes yi feebaruñu mais ni ñuy doxee moo baaxul système bi moo moo moo moo moo troublé wu boobaa trouble métabolique la trouble métabolique nag loolu dafa nekk loo xam koy gérer mais nekk loo xam da ngay dindi sànni parce que feebar ñeent rek la am loo xam dafa ëpp ci yaram bi wala mu manqué ci man olof si wop wop moy lu upp da fay ba bamu upp wala da wàcc ba mu ëpp wala am lu dugg ci yaram bi ta bok ci ñu war ko genn intrus la mën na nekk microbe yi bactéries yi virus yu mel wala sax da waroon a nekk mais nekku fi ñent yo rek moy febar bu ci ne yaay fexe xam lan mo indi jafe-jafe bi nga faj lolu mais nekkul di ne lu ñëw rek parce que ko nga xam ñu la tel febar dama koy faj ci ben fal wala ci ñaar fal bo da ngay xam ne kii xamul limi wax ndax trouble métabolique dañ koy gérer dañ koy réguler rek comme ça bu ko defee nit ki dana mëna dana mëna am jàmm mais du lepp moy wér du lepp lañuy fajj mais dafa am lo xamné tuddu nga ko léegi euh, muy li ñuy wax hémorroïde. Mhm. euh lan moy hémorroïde. waaw d'abord hémorroïde bu ma la jëlé ci ci ci ni nga ma ko laajee rek damaa am hémorroïde la cër la bu ñëpp am képp kuy dund am nga hémorroïde mi ngi mel ni nga ne ma lan moy bakkan mi ngi mel nga ne ma lan moy estomac réew Sénégal. dañuy jël feebar bi cër bi mu feebar ñu tuddee ko feebar bi moo tax ngay dégg hémorroïde hémorroïde hémorroïde. da ngay dégg damaa amee hémorroïde. hémorroïde ñëpp a ko amee ndax cër la boo xam ne dafa bokk ci nit ki xam nga nit ki dafa am ci ci biiram li nga xam moom la ñuy wax colon am colon ascendant colon descendant am sigmoïde bi am li nga xam ne mooy rectum bi anus bi fa la hémorroïde yi nekk hémorroïde ay anneau la ay veine la yoo xamante ni ñoom. dañuy ubbeeku ak tëju pour may sel ñu jall waye tam pour may veine ni ci souf pour ñu jallale li nga xam ne dara ci tànk ñu jàllale ko loolu lañuy ñuy jëriñ léegi veine yooyu nag nit ki am mëna dem toilette constipé par exemple mu séré séré bi yobbu ko mu dagg veine bobu di hémorroïde mu infecté wala muy dem toilette di nalu nalu yag mu def rétention ci veine bobu sang bi dajaloo fa du def retour

ni mu mel dafa xonq wala dafa ñuul wala deret gi dafa bi nit ki tàmbalee dem toilette la deret bi génn wala bi mu paree la deret bi génn yooyu yëpp ay information yoo xam ko war a pour nga xam kii lan moo ko dal léegi ko xam ne nit ki day xam day dem toilette deret bi xonk cur automatiquement mun a hémorroïde fekk lu ci ëpp deret bi xonk bu lu ci ëpp nit ko am cancer du rectum lay daal te ñooñu ni ñu koy xamee mooy dañuy dañuy toog ci période yoo xam dañuy seere mun nañ toog lu mat weer fukki fan juróom une semaine seere jekki seen biir daw man dañuy alterner constipation ak diarrhée ñu dem toilette mu ànd ak deret wala mu leen def lu ñuy wax ay faux besoin maanaam ñu jékki-jékki am yaakaar la ñoo bëgg dem toilette te buñ demee duñ génn dara yooyu ay signes la yoo xam ne mën na nekk cancer du rectum am na tam ñuy am ay fissure anal ngay dem toilette ci forcé mu dagg rectum bi mu nekk fissure boobaa jotu la dara ak hémorroïde mën na nekk fistule donc hémorroïde daal ci tënk cër la boo xam ne ci nit ki la nekk ci suufam mën naa feebar bu dee ñu ne la interne mooy li féetoo hémorroïde bi ci biir rectum bi moom moo am problème bu dee externe ñu ne la ci biti mais li ci ëpp ñu ngi koy jiñ hémorroïde mais nekkul problème mu hémorroïde yeneen feebar la yoo xam dal na. <laughs> Euh, bu ñu xoolee luy eh, joxe hémorroïde. hémorroïde li koy joxe bari na waaye li ci ëpp jàpp nañ ni li ci ëpp li koy joxe constipation ci la bokk mooy seere yi mais nag moo tax gis na ki dafa am hémorroïde balaa ngaa faj hémorroïde war ngaa fexe xam lan moo tax mu am hémorroïde maanaam bu dee ci constipation yi la ban constipation la am parce que dafa am lu ñuy wax constipation simple am lu ñuy wax constipation moteur constipation boo ko déggee mooy nit ki ni muy lekkee dundundam dundinam na moo baaxut wala li muy lekk moo baaxul ba mu yóbbee ko muy seere maanaam ay cëram yi war a yor reesul ñam ñu la ñuy wax appareil digestif bi mi ngi dox mi ngi doxal mais liñ koy jox pour mu liggéey ko moo baaxut kooku dañu am constipation simple mais am na yoo xam ne ñu am constipation moteur mooy ñi nga xamante ni cër yi nga xam ne ñooy tax nit ki bu lekkee mu rees cër yooyu ñoo am problème xam nga nit ki pour lekk buy lekk assimilation bi dafa am nu muy doxee moo tax nit ki bëgg nañ ci moom jamono ji muy lekk la muy lekk mu def ci xelam maanaam mu concentré wu ci li muy lekk. baña lek di seraan télé baña lek di waxtan baña lek lekk di coow wala di xuloo yoy bokku na ci nga xamne da fay indi nit ki jafe-jafe ci wér-gu-yaram parce que transit bi digestion bi du bax parce que nit du bax am na ñoo xam sax bu ñuy lekk dañuy naan. bon am lekk di naan ay gorgé wañewul dara mais lek di naan naan lu bari eggal lek lolu mom baxul mais lek naan ah, petite gorgé kooku amul problème ndax dina dimbali sax li nga xamne moy

moom itam bi muy jaar ci purux bi ci oesophage bi ñuy wax système péristaltisme boobu tamit daa am nu mu ci joué ci nit ki mu jàll nànk dem ci li nga xam ni mooy jëm ci mbàq mi foofu ñu préparé fa ñam ba res bi dafa am lu mu ciy liggéey ci indi waxtaan bi euh, pancréas bi am ñu mu indi ci substance P bi CCK bi polypeptide pancréatique muy yooy rek nga xam ni somatosine bi bombésine yooyu nga xam da ko war a indi pour defarelee ko ñam bi waaye tamit mbàq mi ci moom am na ñu ciy ñu jël ko togg ko ba mu nekk liquide.

ndegam dafay toog ay fan du dem toilette wala toilette yi dafay dijji wow dëgër wala fa nekk yu sew yu dëgër ànd ak rataxit yu mel ni ñandaxit wala dafay nekk loo xam ne ñandaxit lu mel ni ñandaxit moo ciy génn yooyu yëpp dafa laaj nga xool ko ndegam biir bi dinay jooy am ay ballonnement ay météorisme ay rafage benn bokk ci xurr bi muy def ak yooyu wala nit ki bii dem toilette dafay génne ngelaw wala du génne ngelaw yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne da nga ko war a tenir jël ko en pour nga mën a xam nit ki cër bi ak cër bi moo doxul ba indil ko constipation bi donc pour nga régler hémorroïde bi kon faj ko il faut que li koy indi muy constipation boobu nga régler ko ba mu normal bu ko defee nag nga faj inflammation wala inflammation bi nga xam ni mi ngi ci hémorroïde bu ko defee nit ki dafay am jàmm mais nag lu bëri ñu ngi koy jiñ hémorroïde euh, encore une fois de plus te du hémorroïde kon bu mu nàcc rek ñu ne hémorroïde la bu mu metti rek ñu ne hémorroïde la nañuy xool bu ñuy faju ji deret bi nu mu mel

yàpp xana ken ñu bari jàpp nañ ni yap du poson mais yap poson la bu fekkee ni ko utiliser baaxul day nekk ci yow yap le euh, ndox du poson mais bo jëloon nit ki nga jox ko ci ben jotaay mu nerf ben 7 8 litres d'eau day dé sa ndox du poson mais nim mu ko utiliser mo baaxul tout excès est nuisible lepp lo xam nit ki da ci xër rek mun nako gañ nit ki kon war nga fexé ba lepp loy def ci sa lekkin nga lekk lekk goo xam ne dana la dimbali ba sàmm la sa wér maa muy lan yaram bi li mu soxla ci ferñeent jox ko ko bu mu ëpp bu mu yées lu mu soxlawul bugg ko jox. Euh, ci loolu sax laay ñëw muy euh, yan ñooy conseils yi nga xam ne da nga koy jox ci wàllu lekk lu mu war a jël wala boog lu mu war a moytu. d'abord ku bañ a am maanaam bañ di constipé di seere li nga njëkk mooy booy lekk concentré wul ci ngay lekk ndax booy lekk di wax da ngay dugal air air boobu ngay dugal dafay diluer suc yi nga xam ni mooy suc gas yi nga xam ne ñoo war a defar lekk bi nga lekk kon nit ki dafa war a bàyyi wax bi concentré ci lekk ndax booy lekk di concentré wu xel mi moom mooy doxal digestion bi parce que nit dafa am ci do yu dox ci yaramam yoo xam moom commandé wu ko lekk mu rees nit ki commandé wu ko dafa am cër yu koy commandé te yooyu pour ñu commandé ko il faut nga concentré wu ci li ngay def kon concentration ci li lekk baax na li ñuy lekk nañ koy sàq mi bañ di yàkkamti di warax warax warax warax am na dañuy lekk gaawantu warax baaxul. loolu moom ñoom njaayeen yee ko ak ak sàlleen yi ak ndaw kundaay ñoom moom aya nañ ci. yàpp lépp jël rek. war a ñoom pour ñoom bu saa xamee duñ suur. dañuy yàkkamti te boo lekkee nànk di nga lekk li nga bëgg a lekk sa yaram jël ko nga jox ko ni mu ko war a joxe mu digérer normalement waaye itam nañuy lekk lekk yoo xamante ni ak waxtoom lu mel ni yàpp nee naa yàpp kenn du ko lekk guddi sénégalais balaa lekk yàpp rek pour moom guddi jot. yàpp bëccëg nga ko war a lekk moment bi nga xam ne yaa ngi dox say soxla. parce que bu dee lu mel ni par exemple yàpp nag fukki waxtu ak ñaar lay def ci biir nit ki pour mu rees 12 heures de temps kon boo ko lekkoon añ nga lekk sa yàpp ba suur moment bi yaa ngi nekk ci ay activité yaa ngi dox yaa ngi yëngut yaa ngi may kon yaram bi énergie bi nga am mu re mu consommer ko yaa ngi koy dimbali biir bi appareil digestif bi ñu assimiler li nga lekkoon mais boo bàyyee ba guddi nga lekk ko lekk ko 11 heures 11 heures nga tëdd moment bi ngay nelaw biir bi dafa waroon noppalu moom du noppul mi ngi liggéey moo tax loo ci gis day ko xam naa damaa gént lii damay gént lii di gént gént yu doy waar da nga am rab ak yooyu fekk du rab parce que moment bi ngay nelaw hypophyse du tranquille parce que mi ngi li biir baa ngi liggéey da koy perturber sa sommeil ngay gént gént yu doy waar am rab la fekk du loolu juste ni ngay lekkee moo baaxul moo tax guddi nit ki dafa war a lekk repas bu léger bu oyof booy tëdd nga jël sa lu mel ni meew nga naan ko mu mu mu bàyyi muscle yi ñu relâché wu nga nelaw bu baax boo xëyee suba nag bu la neexee. nga ndekki lu 10 su la neex nga baye ba agn mais li gën agn nga lek lu 10 lo xam dana la téye goudi nga lek lu oef bo xey suba bo amé sa kaf wala dara nga jël manam lek dal na oef te lepp lo xamanteni nak dafa am lu melni ni beurre lu melni graisse lu melni sucre su bari si lu melni xorom su bari si loolu na nit ñi baye parce que fay indi ay trouble cardiovasculaire yu bari ci seen wàllu dund mo gis fi ko gis fi amna problème hypertension amna problème diabète

moo bon te bi li koy parce que nit même bu lekkul am cholestérol reste bi day defar 100 pour cent ci nit 70 pour cent yëpp ko defar 30 pour cent ci bi ci graisse graisse yi dafa bëri acide gras yi saturé non saturé mais saturé acide gras saturé bi moom mais. cholestérol boobu la dafa am boo xam ni li ñuy wax HDL bi muy high density lipoprotein bi boobu baax na ci nit ki parce que moom la cellules yi soxla LDL muy low density lipoprotein bi moom moo baaxul soo déggee ñuy wax lipoprotein maanaam graisse yi nit ñi ni mënuñu ko sebb ci ndox mi maanaam ñoom ay du ñu ay hydrosoluble mais ay liposoluble lañ maanaam munul seey ci biir yaramu doomaan aadama pour mu seey dafa am ay protéines yoo xam ñoo koy boot pour mun ko jàllale.

mais cholestérol bu baax bi même bu yéegee ci nit ki indiwlu ko problème mais daal nit ki na moytu lépp loo xamante ne rek mën na indi perturber wala mu troubler li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu xol bi ci wàllu res bi ci wàllu cër yi nga xam ne mooy organe yi nga xam mooy organe vitaux euh, Medoune li ñu cërloo woon ci wàllu waxtu euh, jeex na euh, du ñu def rek lu dul tey ba doon tàggoo yan kàddu lay doon maa koy wax ñëpp rek ku ci ne na bàyyi xel ci wér-gu-yaramam bàyyi xel ci li muy lekk bàyyi xel ci milieu bu muy dundee ak condition yi muy dundee te sellal ko bu ko defee ñëpp ñu wér maanaam daal prophylaxie boobu ma doon wax muy jël say jumtukaay ak say matukaay ba lépp loo xam ni dana la indil jafe-jafe sa wér-gu-yaram nga moytu ko waaye lépp loo xam dana la indil ndimbal ak dollante sa wér-gu-yaram nga nekk ci di lekk lu baax waxuma lekk gu seer Sénégal la ñuy jaawale lekk gu seer ak lekk gu baax dañuy lekk lekk gu baax maanaam lekk yi nga xam ne ferñeent yi ñu soxla muy vitamine seen yaram dana leen ko jox lañ ca soxla lépp ñu moytu ko waaw yow mu Médine moom danay feebar léeg-léeg. waaw danañ feebar bu baax kay ay doomu aadama lañ dañuy feebar de waaye nag danañ fexe ba di moytu feebar yi comme ñëpp bu ñu feebaree nag ñu ut ay pexe rek def pexe yi ndongal daara rek génn ci waaw dinañ feebar kay waaw. Euh, jërë ngeen jëf suñu mbokk yi ñu doon seetaan ñu ngi leen di gërëm di leen jox dox daje seen beneen numéro jërë ngeen jëf.